gis nga soxna may mun a xam nga maanaam réew boo ko yoree bay dem y toujours de l'inachevé c'est-à-dire ëllëg le président qui viendra aussi à la fin de son mandat dina am la des parce que suñu réew yi surtout suñu réew yu mel ni réewu Sénégal les pays yi nga xam ne euh, seen kattan dafa dafa dafa xaw a des maanaam li ñu war a def moo bëri ndax war nañu liggéey ci wàllu euh, salle de classe yi war nañu liggéey ci wàllu université war nañu liggéey ci wàllu industrie donc la tâche est telle man je pense que li am solo mooy euh, fan lañ koy bëgg yóbbu maintenant Alioune Sarr comme ni nga ko sànq liñ ma dénk comme responsabilité j'assume totalement li ma def au service des Sénégalaises et de Sénégalais parce que dama jàpp ne li ñu def amal na njëriñ suñu askan donc euh, je suis pas de cela ci euh, reni yoo xam ne def nañ ko donc je l'assume à l'AFP je l'assume j'ai pris mes responsabilités quand il fallait le prendre donc côté boobu damay dalal sa xel xamal ne amul dara lu ma rëññee maintenant est-ce que am na lu ñu mën a améliorer oui. non waaw. est-ce que am na lu ñu mën a améliorer oui parce que ci sa biir question feeñ na ci est-ce que am na lu ñu mën a euh, gën a gën a gën a jubbanti jàpp naa ko. dama jàpp ne wàllu wàllu wàllu yoon maanaam wàllu justice war nañ ci mën a defaat ay jéego dëgg la. mais d'abord Euh, l' état de droit. Wow. la situation de la justice. waaw xam nga maanaam euh, justice da ngay da ngay xool euh, de la perception mais aussi nga xool la réalité des faits man jàpp naa ni Sénégal am na ñu ay juges yoo xam ne comme man ak yow lañ ñoo bokkoon jàng université ce sont des cadres brillants sont dans les mêmes familles que nous sont des hommes et des femmes qui sont honnêtes mais je pense que le système est organisé de telle sorte que bu leen ci jàppale war na mën a gën a yokk yokk yokk la et l'état de droit mooy lan mooy fexe ba exécutif bi euh, influence bi mu am ci judiciaire ñu wàññi ko de manière drastique parce que loolu tant que ko. donc yow da nga def constat boobu. ah oui absolument que exécutif bi. dafay def immixtion ci judiciaire bi. oui y' a beaucoup de y' beaucoup de sujets yoo xam ne je pense que l' exécutif peut na def immixtion ci ci judiciaire mais loolu li ko indi mooy organisation bi ñu am actuellement. et jàpp naa ne euh, loolu bokk na ci réforme yoo xam ne euh, d' abord qui ont été proposées depuis depuis depuis 2008 mais ensuite yoo xam ne dans les réformes. de la commission qui était présidée à l'époque par le feu le professeur Souran delluwaat na ci mooy ñu doon notre organisation qui fait que l'exécutif sera séparé du, du en faisant quoi justement en coupant le cordon entre et en créant une cour constitutionnelle qui fera que justement Sénégal mais mais mais mais mais yan cas mm-hmm. euh, yan cas d'école nga mën a jël pour euh, ne exécutif bi def na émission ci ci ci non xam nga xam nga xam nga judiciaire parce que nee nañu les dossiers qui sont pendant de la justice de fait généralement boo nekkee de l'extérieur mënoo ko mënoo ko apprécier mais boo xoolee parfois certaines mobilisations de forces de défense et de et de sécurité dans certains dossiers judiciaires la perception du citoyen mën na jàpp ne xëy na bu nekkoon may mun a serait pas été la même puissance d'organisation des appareils de l'État parce que gis nga la perception des citoyens jàpp naa moo gën a fort sax la réalité de de de, de te tey boo xoolee tous les sondages d'ailleurs l'ont montré boo xoolee la perception justement de suñu mbokk yi suñu askanu Sénégal sur la justice euh, elle, elle pas très bonne je pense que yooyu li koy li koy changer mooy ñu fexe ba euh, l'équilibre entre ces ce pouvoir et l'exécutif ñu gën ko améliorer